mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ñun ci leeral TV te nag xam ngeen ko bés la bu am solo ci wàllug diine islam. tey nag mooy bisu korité xam ngeen ko atum 2024 yemoo ak fukki fan ci weeruk avril fii nag nga xamante ne bii la ñu nekk tey moom mooy daaral Quran Zeyda Mariama Niass fii am na taarix boo xamante ne bi am na ko ci wàllug euh, diine islam wante itam njàngalem diine boo xamante ne bi ñu ngi ko fay nemmeeku euh, dañ fi ñëw nag tey ngir fekkee julli bile ak ki nga xamante ne bii moom moo di Mouhamadul Makiyu Cheikh Ibrahima Niass fas yéene jiite bi la julli wante itam yëkkati ab xutba jagleel ko mbokk jullit ñi dañuy nag daal di dem ci biir won leen li nga xamante ne bi moo fi am ndax gis ngeen ko ci bunt bi askan wi ñu ngi bàyyeekoo fu ne ñëw ngir fekkee julli gu màgg gi nga xamante ne bi rek at bu jot dañu koy amal ci bërëb bu sell bi lee ñu àndoon mbokk yi xool li am ci biir bu ko defee ngeen itam déglu xutba gi ak témoignage yu bàyyeekoo ci askan yu bàyyeekoo fu ne ñëw ngir matal julli korité atum 2024.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 الذي قدرك فدعه الذي أحوي المرء فجعله غلاء مهوي سنقلك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى عن كبري ثم لا يموت فيها ولا يحيي عدد لحم تزكي وذكى فيه تصلي بل توزنون الحياة الدنيا والآخرة خير ملقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله koy ne wa ana ajzi bi koor koor man maa ko moom te maa koy fay. mën na waaye yàlla moom nee koor moo ko moom te moo ko fayal boppam. lenn lu nekk dafa wàkkil koo xam ne moo la koy jox. mën na lenn lu ne dafa wàkkil koo xam ne moo la koy jox. waaye pay li ci nekk ci ay koor koor li ci nekk ci ay yool kenn xamu ko ndax yàlla mooy joxel boppam. mu ne waaye koor li ci nekk ci ay yool kenn xamu ko ndax yàlla moo koy joxel boppam. kon nag def pour defal ñu ko mu ne yàlla daf ñu ko defal ngir defal ñu ko ay bonus. téléphone yi sax. mu ne téléphone yi sax. su amee bis boo xam ne promotion la. mu ne bu amee bis boo xam ne promotion la. ñu nekk da ku nekk da nga da nga da nga jënd si yokk sa crédit. mu ne ku nekk da nga yokk sa crédit. ndax nga nga nga gën a am bonus. mu ndax nga gën a maanaam bonus. kon nag. mu ne kon nag. lii yàlla ñu ko waxal boppam. mu ne lii yàlla moo ñu ko waxal boppam. te lu mu wax dëgg la. mu ne te yàlla moom lu mu wax dëgg la. jubluwu ci lu neex ni ñi. mu ne jubluwu ci moom yàlla lu neex nit ñi. rek pour mën na waaye moom yàlla daf cee jublu rek pour xamal. moo tax weeru koor. mën na loolu moo tax weeru koor. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañ koo xaaj ñetti xaaj. mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne weeru koor dañ koo xaaj ñetti xaaj. njëkk ji. mu ne fukk ji njëkk ji. yërmande la. mu ne loolu de yërmande la. fukk yi ci digg fukk yi ci digg bi. jéggale ak njéggale la. ñetteel ji. mu ne ci ñetteel ji. mooy safara. mu ne moo lay goreel ci safara. kon daal mu ne bon daal weeru koor. bëccëg bi ak guddi gi yëpp. mu ne bëccëg bi ak guddi gi yëpp. lépp la. mu ne lépp ay ndollal la. ko def ngir yërmande. mu ne nga xam ne yàlla moo ko def ngir yërmande mu jëm ci jaam yi. weeru koor ci la. l'islam njëkk am victoire. mu ne weeru koor ci la l'islam njëkk am victoire. fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi. mu ne fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi. ci la Baye mu ne su fekkoon ne lislaam dana am kayitu juddu kon bés boobu mooy kayitu juddu. Baye radiyallahu anhu ne su fekkoon ne lislaam dana am kayitu juddu mu ne bés boobu bu def fukki fan ak juróom-ñaar mooy kayitu juddu lislaam. moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ndax moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla yónni na ko bi mu amee ñeent fukki at. mu ne yàlla yónni na ko bi mu amee ñeen fukki at. mu door ko jox alquran. mën a mu doog koo jox alquran. ñetti at yu njëkk yi. mu a ñetti at yu njëkk ne ko ool sa ool sa ñooñ. mu ne ko ool sa ñooñ. ci ay mbokkam rek la ko yónni. mu ne ko ci ay mbokkam rek la ko yónni. ci leen dajale ne lu ngeen xam ci man. mën ne ci la leen dajale moom yonent bi salaay salaam ne leen yéen lu ngeen xam ci man. ñu ne ko xamuñ ci yow lu may baax. mën ne ko ñun xamuñ ci yow lu may mbaax. la tuddee Laminu. mu ne ñoo la tuddee Laminu. ku ñu óolu ki. mu ne mooy ku ñu óolu ki. te boobu yàlla koy yàlla yónneeku ko sax. mu ne te boobu moom yàlla yónneeku ko. kuy dénkaane sa dénkaane wala nga sa am kóllëre. mu ne képp koo xam ne yaa ngi am dénkaane wala ngay ut kóllëre. mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga koy jox. moo tax ba muy gàddaay sax. mu ne koy xatal ba di ba di ba ko tër bëgg koo rey. mu ne bañ koy xatal ba bëgg koo tër bëgg koo rey. ci la jël doomi baayam. mu ne ci la jël doomi baayam. Seydina Ali ibn Abi Talib. mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib. mu ne ko màkk yëpp mën lañ dénk seen alal ji. mu ne ko màkk yëpp moom lañ dénk seen alal ji. kaay tëdd ci sama lal bi sàngo sama mbàjj gi. ko yow Seydina Ali kaay tëdd sama lal bi sàngo sama mbàjj bi. suñ ñëwee. mu na suñ ñëwee. soo muccee nga jox leen seen alal. mu ne soo muccee nga jox leen seen alal. suñ la rayee gàddu naa la aljanna. mu ne ko suñ la rayee day man gàddu naa la aljanna koo xam ne da nga jàmmaarloog ay noonam. la tëru pour rey la. mu ne bañ di ko ko. yow ngay wattandiku seen alal yi ñu la dénk. ba mu ne yow amoo dara looy def di wattandiku seen alal ba bu mu sànku. loolu loolu day mooy maandu mooy yërmande. gannaaw ñetti at. mu ne gannaaw ñetti at. ñu bañ të tëxlu. mën nañu bañ ñoom tëxlu ñoom xorey si. Abu Lahab mi nga xam moo moom moom Aminata ñoo bokk moom moom moom Abdoulaye ñoo bokk ndey ak baay. mu ne Abu Lahab mi nga xam ne moom Abdoulaye mi jur yonent bi ñoo bokk ndey ak baay. ba leen ooyee ci yàlla. mu ne ba mu leen ooyee ci yàlla. Abu Lahab moo jóg ne ne ne ko tëbban laka alihaada jamaatana tos nee na lii nga ñuy dajale. mën na ba mu ootee ci yàlla moom Abu Lahab moo njëkk jóg ne ko yow toskere yow lii nga ñuy dajale. yàlla tontu. mu na yàlla tontu. bàyyi mu ne yàlla. mu ne bàyyi mu ne yàlla. xeres na yonent bi. mu ne xeres na yonent bi salaay sallam. ba ne mënu ko mënu ko wax saagal sa baay. mu ne ba yàlla mënut a wax yonentu saagal sa baay. waaye saar yi jiitu yooyu yëpp. mu ne saar yi jiitu yooyu yëpp. qul wallaahu ahadun qul yaa ayyuhal kaafiruun mu ne saar jiitu yëpp. daf ne ko waxal. mu ne dafa ne ko xul waxal. waaye bëggut ko. métital ne ko waxal sa baay xas. mën na ko waaye moom yàlla bëgg tamit métital yonent bi naa ko waxal xas sa jëmale ko sa baay. moo tax saar boobu amul amu amul xul. mu ne moo tax saar boobu amul xul. ba mu ko ba mu ko waxee ko tontu rek. mu ne ba mu waxee yàllaa ko tontul. xas ko ba xas. jabaram ji nga xam ne umu umu kii la tudd. umu jamil umu jamil. mu ne mu xas ko ba xas jabaram ji nga xam ne umu jamil la tudd. ne foo fekk baatam mi ngi def ay ndiiraan ndax xànc yi mi taxana lay boppam. mu ne foo ko fekk baatam mi ngi def ay ndiiraan ndax xànc yi mi taxana lay boppam. kon yàlla ne ko kon nag ooteel ool ñu ci des. mu ne yàlla ne ko bon ool ñu ci des. gannaaw ñetti at. mu ne gannaaw ñetti at. mu toog ak ñoom fukki at. mu ne mu toog ak ñoom fukki at. màkka dëkkab luuma la. màkka dëkkab luuma la. waaye su luuma bi jotee ku mu topp ku mu oo bay wax ak yow rek. mu ne waaye bu luuma jotee képp ku mu oo wax ak yow. ñu toppale ko ay nit. mu ne ñu toppale ko ay nit. su waxee ñu ne ko eh, demal sa yoon kii suñ mbokk la yaramam neexul. mu ne bu yonent ñëwee salaay salaam bay woo ay nit di leen fekk jëmale leen ci diine. ñu fekk ko fa ne leen hee demal kii suñ mbokk la yaram dafa neexul. gannaaw fukki at. mu a gannaaw fukki at. yàlla ne ko gannaaw tànkam tal na ñu demal ci ñi de oo. mu yàlla ne ko gannaaw tànkam nan na la demal ci ñi nga xamante ni tey jii ñoom la itteel. ci la gàddaayee Màkka dem Medina. mën ne ci la yonantu salaay salaam gàddaayee Màkka dem Medina. ci doxab fukki fan. mu ne ci doxab fukki fan. ba mu àggee. mu ne ba mu àggee. njëkk a def mooy rëdd juma. mu ne bi moom yonent salaay sallam lim njëkk def mooy rëdd juma. fa gëlëm gi wàcce wàcceem ñaareel ba. mu ne fa wàcce wàcceem ñaareel bi. dafa muur. mu ne dafa buur. jooy. mu ne jooy. mu ne xaaxunal manzilu fii mooy wàccukaay. mu ne gëlëm gi moom albaawa dafa jooy ne fii mooy wàccuwaay wi. mu leeral ne gëlëm gi lim doon muur. mu ne bàyyi leeral ne gëlëm gi lim doon muur. foofu mooy wàccukaayam waaye mooy bàmmeelam itam ma ne li gëlëm gu doon jooy mooy dafa ne fii mooy wàccu waay yonantu bi salaay salaam waaye fii mooy bàmmeelam itam ndax dañoo wax ni ab yonantu fu mu deyee duñ ko toxal ma ne dañoo wax ne ab yonantu fu mu deyee duñ ko toxal ba mu amee ñaari at ma ne ba mu amee ñaari at ñoom ñu préparé ñoom yéefari màkk mu ne ñoom yéefari ñu préparé mu ne bëgg ñëw pour faagaagal yonantu bi salaay salaam mu jig ñu ne leen njëgg ma rëcc na ñu ne ñu xamal leen ne njëgg bi day rëcc na abu jaal danaa fa dem. mu ne waaye abu jaal ne danaa fa dem. tëgg fa sama junjun yi. tëgg fa sama junjun yi. sama sàngara si sama sàngara si. ba àdduna yëpp yëg ne abu jaal kenn du ko laal. mu ne ba àdduna yëpp yëg na abu jaal kenn du ko laal. waaye. fekk ñoom junney nit lañ. mu ne fekk ñoom junney nit lañ. wala su manqué juróom fukk la. wala su manqué juróom fukk la. nit ñi doon ñetti téeméer ak fukk ak ñett. jullit ñi doon ñetti ñett. yonent foofu lañ ko mbaaralee. mu ne yonent salaay salaam foofu lañ ko mbaaralee. muy ñaan mu ne muy ñaan. yow yàlla mu ne yow yàlla. yaa ma diggoon ngañaay. yaa ma diggoon ngañaay. sama mbokk yaa ngi nii. sama mbokk yaa ngi nii. xiif nañ. xiif nañ. lexal leen mar nañ mar leen. yow yàlla loo ma digoon soxla naa ko. mu ne yow yàlla ma digoon soxla naa ko. soo bëggee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf. mu ne soo bëggee kenn dootu la jaamu ci kaw suuf. faagaagal kuréel sii. mu ne faagaagal kuréel sii. Aboubacar ñëw ne ñëw ne ko. yonent bi doy na. yonentu yàlla Muhammad doy na. yàlla du tànqamtalu sa oote. yàlla moom du tànqamtalu mukk sa oote. wax nga dëgg. mën na ko wax nga dëgg. jibril ne. ko jibril la nga ne lee. jàpp ci ko pour ko fasam. jàpp ci laxa bi fasam. di ko wax xay suum ak wi mu ne ko di ko wax xay ne na ñu ànd ak junne mu ne malakul mawte ngi ne la ànd ak junne muy juróomi junne malaaka mu ne muy juróomi junne malaaka su ne way bi yëpp ku ne mooy kese mooy faat sa bakkan su ne su yónnee ay malaaka màggal mu ne dafay màggal yonent bi waaye àllak saa rek ñu rey juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk ci ñoom jàpp juróom-ñaar fukk ci yéeféer yi mu ne bis mu ne bis booba a mu ne ci la a ne yonent bi la jaamu ci mu ne la yonent la jaamu ci kaw suuf muy kuréel sa ndaw si. yàlla may ko nga ñaay salaam nga ñaay loolu. njëkk am ci lislaam mu ne nga xam ne moo njëkk am ci lislaam ci weeru koor lañ ko def ci weeru koor bu tedd bii la amoon mu ne yàlla yàlla ci la wàccee alquran. mu ne ci la yàlla wàccee itam alquran. bàyyi mu ne alquran mooy lettre bi nga xam ne. mu ne bàyyi ne alquran mooy lettre bi nga xam ne. yàllaa ko yónni jaam bu nekk. yàllaa ko yónni jaam bu nekk. wax ci lépp lu mu santaane. wax ci lépp lu mu santaane moom yàlla. mu ne ci lépp lu mu tere. mu ne wax na ci itam lépp lu mu tere. ne ku ci ab gouverneur wala préfet wala yónnee woon nga jàng ko. mu ne ci ab gouverneur wala ab préfet wala ab commissaire yónnee woon convocation doo am jàmm lu nga jàng ko. kon nag euh, bis boobu ci la yàlla jàmmalee lislaam mu ne bis boobu ci la yàlla jàmmalee lislaam boobu ba léegi lislaam yokk rek waaye wàññeeku. mu ne boobu ba léegi lislaam day yokk rek waaye wàññeekuwut. diine yoo xam ne. mën a am na diine yoo xam ne. tur wi rek lañ fi dese. tur wi rek lañ fi dese. waaye kenn gisatul. waaye kenn gisatul lu xeyroo ak ñoom. alquran moom mu ngi fi waxtu bu nekk. mu ne waaye alquran moom jamono bu ne mi ngi fi. yàlla mu ne moo koy moo moo ko indi te moo koy moo koy gàddal boppam. yàlla moom nee na moo koy indi te moo koy wattul boppam. sang boobu mooy sangab sang yi. mu ne sang boobu day mooy sangab sang yi. muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci yërmandeem. mu ne ci yërmandeem. su su yónni woon malaaka. mu ne su yónni woon malaaka. danañ am lay ne. mën a danañ am lay ne. lii malaaka yi santaane ñun mënuñ ko. lii malaaka yi santaane ñun mënuñ ko. su yónnee woon jinne itam la ñuy wax. mu ne su yónnee woon jinne itam loolu la ñuy wax. moo tax mu ut ku mel ne nit. mu ne moo tax mu ut ku mel ne nit. mu juddu ci màkka. mu juddoo ci màkka. ba mu am fukki at ak ñaar. génn màkka mu ne ba mu am fukki at ak ñaar génn màkka. tukki moomu itam àggut. mu ne tukki moomu àggut. tukkiwut lu may bi mu amee ñaar fukki at ak juróom. mu ne yonent de bi mu amee ñaar fukki at ak juróom. ba muy jëggaani lu mu takkee jabar. mu ne ba muy jëggaani keroog lu mu takkee soxna. moom jàngut soo bindee turam sax mënu koo xam. mu ne moom yonent de jàngut soo bindee turam Muhammad sax mënu koo liir. mu indi fi téere boo xam ne. mu ne mu indi fi téere boo xam ne. ba léegi di tax lislaam di gën a yokk mu ne ba tax lislaam di gën a yokk borom xam-xam yeeg savant yeeg ñëpp. mu ne borom xam-xam yeeg savant yeeg ñëpp gëstukat yi. ak gëstukat yi. bët bu set ñu trouvé ci alxuraan loo xam ne science mësu koo xam. mu ne bët bu set ñu tufle ñu trouvé ci alxuraan loo xam ne science mësu koo xam. loolu mooy mooy diine mu ne loolu day mooy diine lislaam. diine yëpp. diine yëpp. dañoo am ku leen di propagandal. dañoo am ku leen di propagandal. dañoo am budget boo xam ne dañ koo ootee. dañoo am budget boo xam ne dañ koo oote lislaam moom. waaye lislaam moom. bàyyi mu ne doomi lislaam yi sax ñoo ëpp lu ñu yàq. mu ne doomi lislaam yi sax ñoo ëpp lu ñuy yàq ci lislaam ci noonu lislaam yi. moo tax li mu njëkk wax mooy man jaami yàlla. mu ne moo tax yonent yàlla Isaa li mu njëkk wax mooy na man jaamab yàlla laa. alhamdulilah bi nga xam ne diine jooju moo moo moo raw. mu ne kon bi nga xam ne diine jooju moo Isa a fi ñëw. mu ne yonent yàlla Isa gannaawam yonent yàlla Muhammad sallallahu su fekkoon ne moom itam du du nit. mu ne du dee dañu naan du nit. alxuraan ngi nettali ne da doon dund di feebar di dee. mu ne alxuraan ngi nettali ne da doon dund di feebar di dee. waaye téere bi mu fi indi du fi jógee mukk. mu ne waaye téere bi mu indi du fi jógee mukk. ko maa ko wàccee te maa koy gardé sama bopp. mu ne yàlla ne man maa wàccee téere bi te maa koy garanti sama bopp. yàlla nañu yàlla taas ci barke yonent salaay salaam. yàlla nañu yàlla gërëmal Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahim. mu ñu gis ko. mu ne bi nga xamee ne moom Baye radiyallahu anhu moo ñu tegal lépp ñu ñëw gis ko. ñu ngi gërëm Baba Lamine. ñu ne ñu ngi gërëm Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh Ibrahim Niass. di suñ sëriñ di suñ mag. mu ne di suñ sëriñ di seen mag. nanguwut benn ngant. mu ne nanguwut benn ngant. njabootam xam nañ ko dañ koy forcer sax pour mu noppalu mu bañ. mu ne njabootam gii di taawam Cheikh Ibrahim xam nañ ko daf koy forcer sax mu pour mu noppalu mu bañ. loolu dafay jox misaal. mu ne loolu day dafay joxe misaal. képp ku bëggoon a mel ni moom. képp ku bëggoon a mel ni moom. rawatina nga ne rakkam la. nga ne rakkam nga. amoo noppalu amoo nelaw. amoo benn noppalu amoo nelaw. moom itam noonu la noonu la ko royee ko Cheikh Mouhamadul Amine Cheikh Ibrahim rayoo yàlla yokk wéram. yal na yàlla yokk wéram yaa rabbi. may ko jàmm. may ko jàmm yaa rabbi. ay magam. may ko mboolem ay magam ak ay rakam ci barke Baye. jiital xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi. mu ne ñu jiital xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi alxeyri foo Cheikh Ibrahim Niass. fële féete mu ne ma nga fële féete ñu foofu ca Madina. Baaba Lamin féete ñu fii. Cheikh Mouhamadul Amin féete ñu fii. ay mu ne ñoom nag ay jëwriñ rek lañ yoo xam ne. ay bëkk bëgg rek yónni ñu dem def. lu seen mag yi bëgg rek yónni leen ñu dem def. ñu leen di yàlla. sëriñ bi ne mi ngi ñaanal yàlla magam yeeg rakkam yi. yàlla na yàlla na yàlla jotal mboolem càkkuteef. sëriñ bi ne yàlla na yàlla jotal mboolem càkkuteef yaara bi. ñu ngi gërëm itam jamiyatu ansaaru diin. sëriñ bi ne ñu ngi gërëm jamiyatu ansaaru diin. jamiyatu ansaaru diin. jamiyatu ansaaru diin. jot na ñu defaat yeneen yeneen jéego. mu ne jot na ñu defaat yeneen jéego dégg ngeen taalibe ñëpp ci ansaaru diin lañ bokk. xamuñ benn association ci njëkk Sénégal boo xam ne association islamique ne bu njëkk ji ansaaru diin. sëriñ bi ne xamuñ benn association islamique. boo xam ne fii ci Sénégal bu jiitu ansaaru diin. bu ko bàyyi di xalaat. mu ne bi bàyyi di xalaat jëmeetu ansaaru diin. tëral yi mu ci tëral. mu ne li ci bàyyi tëral. am na ñuy wax ne Nations Unies seen seen seen seen seen kii loi bi sax ñu ngi ko jëlee ci ci tëral yi mu ne tëral bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim tëral na ko jëmeetu ansaaru diin am na ñuy wax ne Nations Unies sax luñ tëral ci seen programme loi ñu ngi ko jëlee ci jëmeetu ansaaru diin bu bàyyi bii nii. suñ dox yi yéex. mu ne suñ dox yi moo yéex. waaye. waaye. jot nañu gaawal ko. mu ne jot na nañu gaawal ko taalibe yi dañ dégg. ndax wax jot na. mu ne ndax wax jot na. te wax ji itam jëf jee ko gën. wax ji jëf moo ko gën. taalibe bàyyi laa rek. taalibe bàyyi laa rek. doyut doyut. mbaxana mu gudd rek doyut. mbaxana mu gudd rek doyut. mbub mu rëy bay watatu itam doyut. sëriñ bi ne mbub mu gudd bay watatu rek itam doyut. waaye taalibe bàyyi. jikko ak jëf ak melo jikko la ak jëf ak melo. kenn ku nekk kenn ku nekk ci ñun. soo sa néeg. soo demee ba ci sa néeg. xool yow lan nga lan nga lan nga lan nga doon ci bàyyi. sëriñ bi ne boo demee ba si sa néeg nga wéet ak sa bopp nga xool yow lan nga doon ci Mawlana Cheikh Ibrahim. nga xam ne lu ñu li bàyyi di dox ci àddina bi yëpp ba toj ci yëpp. nga xam ne di nga xam ne li bàyyi di dox ci àddina bi ba toj àddina bi yëpp. ñun ñu nekk fii dëkk ak moom. ñun ñu nekk fii dëkk ak moom. jot nañ ñu roy ci jikko yooyu. jot nañ ñun taalibe ñu roy ci jikko yooyu noonu. loolu mooy guddal mooy mooy dekki lislaam. loolu day mooy dekki lislaam. lislaam du dee de. lislaam day du dee. waaye ñi ñi ko elloowut suñu fi jóg ñoom ñooy dee rek moom mu des. mën a waaye ñu ko elloowut suñu fi nekkee ñoom ñooy dee rek moom mu des moom lislaam. kon nag jot na. mën a bon nag jëf na jot na. ñu seet jaar jaari Mawlana Cheikh. ñu seet jaar jaari Mawlana Cheikhul Islam Al Ibrahim. nit ñi dañuy tooñ. nit ñi dañuy tooñ. ne ne nit yi diine yi nit yi diine yi nekkeewuñ fi nekk nekkeewuñ fi lu ne di kañ sa maam wala sa baay di kañ sa wala sa baay waaye baay moom du baay ju kañ duut duut maam ju ñuy kañ. mu ne bàyyi duut bàyyi ñu ñuy kañ duut maam bu ñuy kañ. bàyyi exemple la def. bàyyi exemple la def. Sénégal gi da koo bàyyi. Sénégal gi da koo bàyyi. jóg moom kenn. jóg moom kenn. téye cartable ak boppam. téye cartable ak boppam. amul benn àndandoor. amul benn àndandoor. toj àddina bi. toj àddina bi. ba ba xam ne réew yi mu toj. asaka gi xajuñ Sénégal. asaka googu xajut Sénégal. population yi Sénégal population yi Sénégal. motuñ motuñ la ca kanu. motuñ la ca kanu. ñu di ko gis. ñu di ko gis. di wax ne ci lañ bokk. mu ne di wax ne ñun ci lañ bokk. te melukaan melut ni ñun. te ñun meluñ na noonu. war nañoo gëstuwaat war nañoo gëstuwaat ñun taalibe yi xoolaat suñ bopp. ansaaru diin du da ngay wax ne ci laa bokk rek. ansaaru diin sëriñ bi du ne dangay wax ne rek ci laa bokk. gox bu nekk bu dee dëkk dëkk bu am ñetti nit sax. mu ne Baye dafa waxoon ne gox bu ne bu fekkee ne dafay am ñetti nit sax. war nañoo formé. war nañoo forme yoo xam ne dañ ciy jàppale jàppalante. mu ne war nañoo formé kuréel goo xam ne dañ koy nase ci ansaaru diin comme ñu ko Baye waxee woon képp koo xam ne taalibe nga ell na ci yow nga am carte jamitu ansaaru diin parce que moo lay wane ne yow taalibe Cheikh Ibrahim nga ñuy ànd nosee. loolu loolu mooy mooy tax suñ jëf ji am. mu ne loolu day waxi baay boobu buñ ko defee mooy tax ñun suñ jëf am njëriñ. li ëpp ci waa Sénégal ñii dem Nigéria. mu ne li ëpp ci waa Sénégal ñii dem Nigéria. ñu ngi ut ndimbal te ñu ko utee bàyyi leen dugal ci diina ji. mu ne ñu ngi ut ndimbal te lañ koy utee bàyyi leen dugal ci diina ji. kon ñun ñoo gën a xëyoon ndimbal loolu. mu ne kon ñun ñii ñoo gën a xëyoon ndimbal loolu. yàlla na yàlla méngoo ñu yaar bi ci barke Baay. yàlla aar Sénégal population boo xam ne. population boo xam ne. Baye tagg na leen. Baye tagg na leen. ne leen war na àddina bi yëpp. ne war na àddina bi yëpp. waaye gisul lu mel ni Sénégal. mën na waaye Baye ne gisul fi lu mel na Sénégal. ak ak Mauritanie. ak Mauritanie. ak Nigeria ak ni ak Gambie ak Gambie. loolu nag loolu nag. waroon nañoo gën a soññu. loolu de waroon nañoo gën a soññ ndax ñu niroog waxi baay jooju. ndax ñu niroog waxi baay jooju. wala nga xam ne ñun dañ cee bokkul bokk. mën na wala nga xam ne ñun dañ cee bokkul bokk. yàlla nañ ci bokk. yàlla nañ ci bokk ci barke Baay. aar Sénégal yal na yàlla aar Sénégal. Sénégal lu nekk yàlla nga ko dencal. Sénégal day bàyyi ne lu nekk yàlla nga ko dencal. li manqué rek mooy. li manqué rek mooy. ñu dem def suñu warugar yi. ñu dem def suñu warugar yi. suñu defee suñu warugar yi. suñu demee def suñu warugar yi. lépp yàlla koy def lépp yàlla koy def. dëkk yi yëpp. dëkk yi nga xam ne ñu ngi dem di ko jéggaani yëpp. may na Sénégal loo yàlla may na Sénégal loo xam ne mayut leen ko. ci diine ak ci xam-xam ci diine ak ci xam-xam. ak ci gëm yàlla ak ci gëm yàlla. waaye li gën rek moo ñu def. mu ne waaye ñun day nu ñuy def ba organisé organisé rek moo ñu des ñoo ñu dese. waaye nee na nag. mu ne bàyyi nee na nag. maa ngi gis ngeen doon buuri àddina. mu ne man day Cheikh Ibrahim maa ngi gis ngeen nekk ay buuri àddina. génération bu ne war nañoo pousse ba bokk ci ñooñu. bàyyi ne génération bu ne war nañoo pousse ba bokk ci ñooñu.